assalamu alaikum internet yu Sare sport les amoureux du ballon rond et bienvenue dans votre rubrique revue sport sur sport suñu lion yi nga xam ne nii fu mu toll nii ñoo ngi def pré-saison bu exceptionnel yi nga xam ne nii ñoo ngi si fës bu baax a baax yàggul dara léegi léegi kii di Pape Makhtar Sarr Pape Makhtar Sarr mais kii di euh, Pape Gueye rek mas Marseille bi nga xam ne ñoo koy football Ismaël Sarr di leen wax moom tamit moo ngi si départ yi maanaam ñu ne ñëpp titulaire lañ premier bi bi kii di Pape kii di Pape Gueye moom moo ko dugal. Elimane Ndiaye moom kenn dootu wax ay waxam fu mu toll nii même fekkee seen match yi pass sax défaite dañuy jël waaye moom. c'est normal te gisuñu ko woon si match bi démb alors absence am nag lu ko firndeel mooy eh, kii di Sheffield ay groupe lañu am donc groupe bu nekk peut-être ñu ñooy football si yenn match amical loolu rek moo tax nii di eh, waa Sheffield maanaam bokk si titulaire yi ñu bëri lañ yaakaaroon ni peut-être lii di Marseille fu mu toll nii lañ nekk négociation yi moo tax kii di Iliman Ndiaye eh, jéewul match boobu boobule mais du woon loolu dañ koy leen di rek pour ñu xaw a waaye tuuti. waaye timit defar yeneen séquence yeneen entraînement yi pour préparation lii di saison bi xam ngeen ni lii di Seth Fred fu mu toll nii nag jóge na D1 mais jóge na D2 mais D1 la jëm maanaam Prime League fu mu toll nii foofu la jëm. keneen ki nga xam ne nii moom tamit moo ngi def feu et flam foofu sa prime bi muy Nicolas Jackson gannaaw démb moom tamit bu mu dugalee deuxième biom bi nga xam ne nii euh, dugal na ko foofu sa Chelsea mu nekk pression bi nga xam ne moom tamit waa Chelsea wala Angleterre ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xale boobule. Euh, même fekkee Sadio Mané moom tamit démb gis nañ ko football na toll ak 45 minutes mais tamit ba léegi fu mu nekkoon coow ak Bayern Munich Tuchel Arabie Saoudite ba léegi moo ngi moo ngi gën a taxanaase comme ni ñu ko waxee waaye fu mu toll fu bu nga gisee wàcc Bayern ni compoto ak Sadio Mané Sénégal yi bëri wala sax ñu bëri li jàpp ni mooy Sadio dafa war a quitter foofu sa Bayern Munich

match amical yi nga xam ne nii démb nekkoon neexoon na trop diggante équipe bi maanaam équipe bu mag bi di Real Madrid ak euh, équipe boobu léegi nga xam ne nii moom tamit fu mu toll nii moo nga préparé saison am sax saison mu nekk moo mën naa nekk saison bu euh, bu am solo parce que tamit xam ngeen ni fu mu toll nii football ak Real Madrid di yombu looloo waral euh, équipe boobu léegi Real dóor deux bi à zéro match bi nga xam ne kii di jot. Bellingham moom moo dugal premier bi bi waaye Joselu moom tamit moom moo daal di dugal bii bu except Sonel Barça moom tamit dem moo doon jàkkaarloog Arsenal de Arsenal de mu dóor ko moom tamit 5 bi à 3 mu doon li nga xam ne nii kii seen. Iniesta wala sabi eh, bi nga xam ne nii gannaaw ba match bi yëpp jeexee moom nee na eh, Arsenal match Ligue des champions doon fóoti ñoom match amical rek lañ ko jàppee woon mbokk internet ci Wassare Sport li ñu leen doon tey seen biir rubrique Réveil Sport di jox dig daje ba suba incha allah.